liman rabbi silmani asalaamaaleykum euh, mbokk téléspectateurs yi de la Senzoom TV amaat nañu mbégte bu baax a baax biir euh, soir euh, ci kër gu mag bi ci Njaareem fas amal ak yéen li nga xamante ne ni moom mooy Euh, li nga xam ne moom mooy gàmm gi euh, comme nañ ko defee woon ca Touba rek euh, ca màggal ga mën nañu fas yéene waat àndaat ak yéen ci li nga xamante ne ni moom mooy gàmm gi nga xam ne Serigne Touba def na fi 15 ans yoo xamante ne ni 15 ans yëpp fii la ko gàmmoo. kon nga ko taalibe yi ñu fas yéene ànd ak yéen rek. daal di dugg ci biir kër mag moom waaye balaa mbokk téléspectateurs yi de la Senzoom TV amaat mbégte bu baax a baax euh, dellusiwaat fii euh, ci kër sëñ Touba gi fii ci kër gu mag euh, daal di leen nuyu ziar leen suñu mbokk taalibe yi ñu fi fekk waaye di leen wax ni leen yàlla nañu ko teewee ay at yu bare bari ci gàmm gi nga xamante ni mooy édition 2018 tey nag ñu am mbégte bu baax fekk fii ci kër gu mag ci kër sëñ Touba gi ki nga xamante ne nii kenn du ko dootu ko présenté fii ci diwaanu Njaareem muy oustaz Ngounda Faye euh, nekk fële ci rajo Bawol FM tey moom lañ fi am euh, comme invité mu war mun a waxtaan ak ñun euh, ci jaar-jaaru Serigne Touba ak li nga xamante ne nii moom mooy gàmmu waaye sopp bi Serigne Touba Cheikhul Khadim Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul soppoon yonent bi sallallahu alayhi ba tax képp ku wax ni Serigne danga naan Khadim boobu. boobu ma daal di nuyu suñu mbokku eh, taalibe yi nga xamante ne nii ñoom ñoo nekk de la diaspora tax mënuñu fee teew te tey ñu teewal leen fii ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax di leen jaajëfal di leen wax am nañu mbégte bu baax ndax eh, di li saa su ne ñu ngi déglu li nga xamante ne nii moom mooy eh, Senzoom TV. ñuy jël ay nuyoo ki ziar jagleel ko mbokki auditeurs yu seen Senzoom muy ci biir réew mi ak bitim réew fu waay mën a toll rek. di jot image yi di ci bég ñu ngi lay ziar di ziar señ yanqub mi nga andal ak soxna yaasin diouf euh, di len jaajeufal ci sen taxaway fi ci rew mi amna solo lol waye amati na solo nak ngeen tew tay fi ci bukhal mubaraka ci pak bun barkel bi nga xamne fi la sëriñ touba don dundale gudigi gudig guddi Oh, xam nga Serigne Touba ak yenen salassam salaa jaxaso lol ba sun borom da dëppale sen mbir yu bari bo joge ci weeru magal da nga nan gàmmo ni ngay waxe khadim tek ca rasul idaafa ko ca nonu bo joge ci boo ne boo muy wéru safar de rabiul awal tek ci rabiul awal kon sun borom mo boole seeni mbir lolé nak euh taxna ba bës bi sëñ Touba de ko dan magal fi ci bukhal mubarak wax nañu ni bu gamu masaana ñëw day buntu mi yépp dina woné mbektem ci wér bi bam bam bamu jeex nga lolé bëgg gi mu bëggoon bi sallallahu alayhi wasallam bo jëne ne sama ñoñ sama njabot sama darat jël naa ko def ko def ko jote ko yonent bi salaas muy ak njot kon loolu sëriñ Touba mi ngi wax ci am mbindam ne mi ngi tàmbalee def gamu, ci atum asas wax ne e, ahyaytu mawlida nabi min asasin wa qaada li fawqa almuna fi talsas asas 1301 la ci hijriya judd euh, maanaam gàddaay yi waaye tolloog wala tolloog 1884 mooy ginnaaw ginnaaw bi waajuram làqoo rek la tàmbale di ga gàmm waaye neen gàmm googu maa ngi koy dundal di dundal ba yegg si ci e, talsas talsas mooy 1339 tolloog 1000 1921 euh, muy juróom-ñeenti atam fii ci njaareem waaw neena ba ban yegge fofu la ci am lama lama bëggoon sun borom defal ma ci lu kawe njort sama njort kon juróom ñenti at yoy ci njaareem ni 1921 ci la amé lim bëggoon lepp ci gamu ci la ko euh, sun borom faye payam goga ci tukem ga yit ci at même at ci lañ jëk def magal fi ci ci ci bukhari mubarak kon fii pak la bo xam ni am solo la eh, ci tarikh l'islam way wai rawatina nak ci yoonu mourid fi ci pak bi la won fi la doon wote jambar yi nekkon wër ko doon dundal gamu, fi la wax ne bayatuhu fil barri tahta sajara wal barru tayyibun wa hawli barara jaayante nak mom ci garab gi muy garab gi ngay gis tubi, ci buntu bi muy xay gi fala jaayante ak yonent bi sallallahu alayhi wasallam fofé bi jaayante ak mom booba ñu baax ñepp ñu baax ñoko wër wuteeg jaayanteem ga nga xam ne nii la ca bagong gabon baayaxtuhu fil bahri tahta sajara wal bahru musbidun wa hawli fajara fofa dafa jaayante won waye li ko yépp ñu ñu ka ay kàccoor lañ won kon ñaay jaaran jaayante yoyu feele ca géej la ca gabon waye fi ci al-bukhal mubarakah Bak bi la tuddee bak buñu buñu barkel bi nga xamné euh fi la ko lepp fek fi la gëna kawé yonnent bi sallallahu alayhi wasallam nak ak mom boo nee Sëriñ Tuuba rek neel yonnent bi alayhi wasallam bëgg gi mbëggon yonnent bi sallallahu alayhi wasallam and gi mu ak mom liggéey gi liggéey ak mom yonnent bi sallallahu alayhi wasallam wëlbeuti ko fay ko limu fay kon guddi la go tedd gu mag go xamni ni na Dan baye xel bu baax den ko war di magal di taxawal yenen bi serigne touba wax na ne guddige bu ma saana dama koy magal waye jaay damay jamay jël boru tag ko bo xamne ne fu mu yegsee dina ko tag ci guddi googu lolou da koo jëloon jaayante ko bo dege wazkur yi sun borom di wax ci alquran fatlikul waskur dañuy wax waskur fi kitaabi idris innahu kaana siddiqan nabiya waskur fi kitaabi muusa innahu muxlasa waskur abdana ibrahim wa isxaqa wa wa yanquba yooyu ay nit lañ ñu baax ñoo xam ne nii suñ borom da leen da doon wax yonent bi fàttalikul fàttalikul yanqub fàttalikul ibrahim fatlikul ishaq ah ñu bax la won kon bu nyubah ñu baax ñooña lan doon rawati na nak ki nga xamne moy gën ji bi kon kun war di fatliku la waye di wax ni kemtan yu bari yi koy sun borom defal mu defal ko kemtan yu bari yo xamne tuba touba tudd na ci tudd na ko ci jazbu tudd na ca kemtan yi ko sun borom defal tudd na ko jëm sunu jëm yonent bi alayhi wasallam nga xamne tay buñ la ko jàngaloon nga nga nga dajeeg yonent bi salaa salaam da jàpp loxo bi ne kii la ma sëriñ Touba doon wax ndax portrait portrait bi mu def ci moom waaw bi mu def ci moom waaye yemul foofa waaye jikkoom yi tedd yi mu tudd ko ci euh, euh, téere boobu kon mujizaat yooyu muy yi nga xam ne nii moom la ko suñu borom joxoon ngir dëgërale ko ay kàddoom toll na ci junni ak ñaar téeméer yoo xam ne ay mujizaat la yii bi muy laata gane àdduna la feeñ ndax waajuram wu jigéen bi mu nekkee moom yëgul dara li jigéen ji warut di yëg amul coono yooyu waaye itam bi mu ganee àdduna feeñ na feeñ feeñ na ci moom ay moojisaat ci guddi ga ba yéeme ay réew yu sore di gisee boo xam ne nii ñaari ñaari ñaa bu doon bëccëg boo doxee boo xoolee fi ak un kilomètre doo gis ka nekk sa kanam waaye ay réew diggante réew ak réew gisante loolu ay ay ay mbir la ci biir waaye itam yu bari yu feeñ ci guddi googu waaye bi weesoo it bi mu weesoo itam ba mu gane àdduna ci ndawam am na yu ci feeñ boo xam ne yéefar yi daan nañ ko jéemal xam ne kii kat mag ku am avenir la ëllëg bu di ko jéemal waaye sunu borom di ko dimbale ci mujizaat yooyu waaye am na ci yoo xam ne bi muy feeñ boobu dem na suñ borom yónni ko mu yi nga xam ne moom la doon dërëlaayoo ñu di ko ci jéem a xupp waaye yooyu itam suñ borom dimbale na ko ci am ci yoo xam ne nii am ci yoo xam ne nii bi muy feeñ boobu làqu na làqu na ndax euh, doomam ji ñuy wax faatima moom yonent bi salaa salaam da ko ne woon man sama dig yegg jege si na gis naa ne sama digg jege na maa ngi waaja a wuyu ci sama borom waaye yow sama sama ginnaaw yow yaa ci yaa ma ci yaa ciy topp ci sama njawoon ñi ma gën a jege yëpp yow yaa ciy topp te loola am na kon moo gisaat yooyu la ko suñu boroom joxoon ngir mu dëgërale ko li nga xam ne nii mooy woote gi waaw ah, bu fekkee am nga beneen question. jërëjëf oustaz Ngounda Faye yaakaar naa ni leeral bi am na solo ci diggante Serigne Touba Cheikhul Khadim Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul diggante mag yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñoom ñaar mu mel ni que oustaz tey su ma ko doon wax ci tënk euh, Seydina Mouhamed sallallahu alayhi wa sallam dafa mel ni que Serigne Touba euh, moom euh, daf ko daf ko dëppal boppam ba mu jeex ndax boo déggee danaan man maa wax rasulilaay loo xam ne. kenn dootu ko ko wax moom Seexul Xaddim Cheikh Ahmadou Bamba Xaadim Rasul ñu ne déeta mu jël taawum bu góor tuddee ko encore euh, Seydina Mouhamed salallahu alayhi wa muy Serigne Modou Moustapha taawu jumaa ji kooku it waajuram bu jigéen nekkati soxna Aminata mu mel ni que moo nekkaat waajuru euh, euh, Seydina Mouhamed salallahu alayhi wa sallam waajuram bu jigéen kon mu mel ni que Serigne Touba ak yonent bi salallahu alayhi wa li leen lien maanaam li leen boole dafa bëri. maanaam euh, Serigne Touba bëgg na Seydina Mohamed bëgg goo xam ne waaye saa su xëyee dana julli ci moom dana tagg rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam tagg goo xamante ne nii kenn mësu ko koo tagg wax na ko lu kenn mës a wax waaye bind na ci moom loo xamante ne ni kenn mësu ko bind moom Cheikhul Khadim Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul kon tey ñu ñëwee fii ci këram gu mag gi ci njaareem kenn ku ne xam na ne euh, boo ñëwee ba ci kër gu mag gi ci jumaa ji ñaari soror yooyu mooy victoire Serigne Touba diggante mag tubaab bi. ba ko yàlla may ko ndam rasulillahi ànd ak moom tey jii mooy ñaari victoire yi nga xamante ne nii mooy ñaari soroor yi ci buntu jumaa ji muy victoire Serigne Touba moom Cheikhul Khadim Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul ndax boo xoolee fii ci xayma gi fi lañ ko jëlee te fii li dellusiwaat daal di ñu daal di koy defaral jumaa ji muy ñaari soroor yi tàllal ñaari loxoom muy lislaam am na ndam. kooku Serigne Touba Cheikhul Khadim rek moo ñu ko defal tubarfakalla macha allah euh, yàlla nañu yàlla taas ci barkeem waaye taas ñu ci barke boroom guddi gi moom Seydina Mouhamed salallahu alayhi wa euh, kontaan nañu nag baax baax waaye balay boobu ñu nuyuwaat suñu mbokku diaspora yi de la ànd ak yéen euh, suñu mbé seen mbégte di suñu bànneex. Touba TV ànd ko ak soxna Yacine Diouf ak ki nga xam ne moom moo tax ngeen di ñu gis anam ba mu gën a rafetee muy ba dégg naa léegi oustaz naan euh, ba mu ngi reetaan mu mel ni ko moom bég na euh, ci li nga xamante ne ni euh, moom nga wax ci turandoom boobu taqoo nag rasulillahi salallahu alayhi wa sallam euh, guddi gi nag yàlla nañu ko yàlla defal ñu koy fekkee ay guddi yi bare bari euh, fii ci kër Serigne Touba gi saa su nekk oustaz suñu ñëwee rek suñu borom lay yokk xéewal yi ci barke boroom guddi gi waaye lu ñu fi ñaan yàlla itam kenn ku ci nekk soo jugee yàlla na ko suñu borom nangu rawatina borom guddi gi moom